ci ndigalu serigne babacar si mansour yalla na fi yag te wer serigne mawdo si dabax serigne babacar si abdou mi ci daara yi lan mo xew bis bi nga xamne wa daara nehmadi bu soxna karambay bis bi nga xamne serigne abdou aziz al amin mo lan ci joxon ndigal ñuko ko def le 25 mars ren bis bi ñu ko japp le 4 mars 2024 ci teewaayu serigne mustapha si bu serigne abdou aziz al amin dana tew ci bis bi ko bis ba ngok ñu ngi caa kuy bëgg si dina mohammed soxna karambay ne mi ngi woo mboolem daayra section ñu ngi laa woo ci bis bi kon bis baa ngi noonu ñu ngi caa woo mbooleem ba nag bëgg nañ 1 heure ñëpp dajaf bu une heure jotee ñu xéewalu daal di jox gan ñu añ bu 3 heures jotee ñëpp booloo dem ci tànt ba ñu jàng ñaanu Serigne Babacar Sy ba waaye jàkkaarloog sunu sang ya Serigne Moustapha Sy bu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin mu def lam daan def ñaanal ñu waaye soññuñu ñu ñi ba beneen yoon bëgg si wàngook la 4 lay doon fële ci Tiwaawoon ñu ngi caa woo mbooleem kuy bëgg Seydina Mouhamed ñu ngi laa woo ci bis bi waaye bis bi nag andrik Leidon Sirtaha TV seen umma islamique na la te surtout